asalaamaaleykum mbokk yeeg xaritu 2STV. am na ci tàmbalek xibaaru diggu bëccëg gi ci kàllaama yi Kocc Barma gannaaw ba nga leen nuyoo dalal leen dañuy nuyu dalal ki nga xam ne si ñaareelu xaaju xibaar yi moom la ñoo àndal di li ci ëttu yéenekaay yi di Samba Ardo Ardo ma di la nuyu di dalal jàmm. maa ngi lay fay bu baax soxna Oumy Ndoye di la lalal itam. bisimilah ci xibaar <laughs> baax na dañuy daal di tàmbali kon xibaar yi ak rek Cheikh Béthio Thioune mi nga xam ne nag inculpé nan ka teg sous mandat de dépôt mu nekk kon jamono ji ci kaso ba nekk ca Thiès daal di fa fanaan guddeem gu njëkk moom ak euh, ñaar fukki taalibeem ak benn waaye nag euh, néeg bu gën a baax lañ ko fa jox te cheikh bi fi mu ne bokk ko ak kenn moom rek moo fa ne Gustave Emmanuel Faye lañ ci àndal lu jege ñetti waxtu juge d'instruction bi dal dina jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Cheikh Béthio Thioune di kilifa cantakoon yi ci kaw loolu ki nga xam ne mooy Cheikh Béthio Thioune juge d'instruction bi xamal na ko ne am na juróomi tuumal ñu teg ci kaw ndoddam muy association malfaiteur yore ab ngànnaay te amoo kayit recel de cadavre te suul nit te amoo autorisation def complicité d'homicide balaa loolu ki nga xam ne mooy Cheikh Béthio Thioune dal dina jàkkaarloo juge d'instruction bi bañ koy indee amoon nag matuwaay yu mat sëkk si li nga xam ne mooy kaaraange bi mu waxtaaneek moom ba pare dal di dinañ ko placer sous mandat de dépôt yóbbu ko fa ñuy wax mag bu Thiès di prison centrale foofu itam am beneen kaaraange boo xam ne moo ko gunge ba fa nga xam ne mooy mag bu Thiès si yoon bi yëpp ak li nga xam ne moom mooy entretien bi ñii nga xam ne ñoom ñooy cantkun yi mënuñu woon yegg si fi nga xam ne moom mooy tribunal régional wala itam yegg fa nga xam ne ah, moom mooy yoon bay jaar jóge tribunal régional yegg fa nga xam ne mooy mag bu Thiès si jamono yii seetu nañ ne Thiès benn dëkk ñaari gaar nekk capitalu affaire Cheikh Béthio Thioune jamono ji fitna bi mu ngi fi wàcc fitna gi mu ngi fi wàcc Cheikh Béthio Thioune nag du ñu bàyyi rek mbir moomu ni euh, rek ki nga xam ne moom moo bokk ci pulu avocat bi koy défendre di maître Ousmane Seye moom nag yëgle na ni rek Cheikh Béthio ku gëm yàlla la nangu na li nga xam ne dal naka tey sonj rek taalibe yi ci ñu dal waaye ñoom avocat yi ci seen jëmmi bopp weekend bi daa ñu toog gisee xool rek ay bés bii di ñëw bu altine jotee naka la ñoo def ba mën a sàkku rek ci ki nga xam ne mooy juge d'instruction bi lii di ab bàyyi ak ndëgëniku di liberté provisoire pour lu fukk avocat yooyu nag daal di fas yéene taxawu cheikh bi rek layal ko ci kanamu tribunal bi ndax nag nee ñu seen client moom yëgul tinul rayul kenn seen gis-gis tamit di bépp koo xam ne rek juge d'instruction la bu la procureur yabalee di nga war a njëkk def nag mooy rek daal di def lii di bàyyi ndëgëniku cheikh bi mën a dellu si njabootam heure bu ko yoon soxlaa mu ñëw loolu nag daañ ci dellu si ñëwaat ci yaatal si yeneen jotaayu xibaar di àddu ba tey ci yeneen nag fanweeri taalibe ak juróom-ñaar yoo xam ne ñoom tamit foofee ca Thiès yoon da leen teg loxo ndax dañ fa amaloon na ay manifeste yoo xam ni nag yoon nee na teguwul ci yoon yàq nañu alalu buur dajaloon nañu ci mbedd bi te yoon mayu leen ko loolu nag tax ñu jàpp leen ba ñu nar a tëdd ba àllarba ñaari fan ci weeru mai bii di ñëw bés boobu nga xam ne ci la ñuy daal di jàkkaarloo ak attekaay bi ca tribunalu flagrante délit bu Thiès. buñ fa jógee daal di àddu nag ci li nga xam ne mooy mbalit mi mbalit mi jamono yi mu ngi nekk gàññ ci ndakaaru li ko dalee ba liggéeykatu Veolia yi nekkee ci grève ba tey jii xar kanamu dëkk bi nag daal di soppeeku ñaaw lool commerçant yi nag yi nekk Sandaga di ko naqarlu ni nee nañu mbalit moomu mu ngi leen di yàqal seen liggéey ci anam yu bëre client daanaka kenn gisatu ko ndaxte nag kenn mënul dékku xet gu bon googu leen wër ndomb Alioune Kébé ak Alioune Ndiaye defal ñu ci reportage instant bi moom nii mu mel nii jéggi na doyoo. jàngat bi ma ci am mooy que ne lii rafetul salte bi baaxul xoolal fii nit ñi niñ fi bëree ak salte bi loolu baaxul ci réew mi encore ci capital bi te régime bu bees lañ am donc régime bi dafa war a def tout pour changer physionomie capital bi. grève waa Veolia bi nag di feeñ ba ci wàllu jaaykat yi feggoog mbalit mi ndax ba grève bi dooree ba léegi nag clients yi dañu leen di daw mbalit mi moom li ñu si ragal dafa bëri parce que ñun suñu doole la ñu yaakaar rek si la ñuy dund on n'est pas salarial ni rien donc yi gis lii xam nga duñu ñëw fii dañuy jéem a dem feneen parce que duñu jaar fii pour jënd rek di exposer seen vie en danger comme ça lii dafa rafetul client mënatuñ koo gis actuellement ni amatul benn sécurité nit dootu fi nangoo ñëw mënoo gis client mënoo jaay même lekk sax boo ko jëndee doo am foo mën a toog lekk ko. ñenn ci askan wi di ñaan nguur gi jéem a taxawu ñii di liggéeykatu Veolia yi ndaxte liggéey ca mbalit mi taxul nga bañ a nekk citoyen comme ñëpp ba mën a jor sa àq ak sa yelleef. ko gis xam ne du yoon bon ñun bi ñuy fal mag yi dañ defoon lii rupture la quoi jeex na quoi ci Sénégal te éboueur yi. ñoom seen liggéey vraiment ñun li ñuy gis sax moo gën a yelloo yeneen liggéey yi parce que ñoom vraiment li ñuy décharger mooy salte yi ak mbalit yi ñii waruñu leen sax di xaarloo un jour waxatuma la ak ay deux mois de salaire quoi parce que ñii seen liggéey sa exposé. lépp lu ci munti am nag askan wi ñee ne nguur gi dafa war a jël ay matuwaay ngir dakkal lu ni mel ndax mbalit munta dëkk ak ay doomu aadama. te muy dëgg Alioune Kébé ci wàllu politique Benno Bokk Gis-Gis di waajal nag wiken bi tabb gi nga xam ne dañ kaa war a tabb rek seen i njiit ci list électorale yi lépp nag ci waajtaayu législative yi ñëw. démb la coalition bi nga xam ne Pape Diop moo ko jiite amaloon nag ab ndaje ngir yëgal ñi nga xam ne ñooy seeni i ñoñ lépp lu aaju ci wàllu woowu Moussa si di ci addu di indi ay leeral ci jokkoom nag ak Moustapha Ndoye ak Babacar Ndiaye. waaw coalition bokk gis-gis bon dañuy sant gërëm militants yi fi ñëw yëpp responsable 19 section Dakar yëpp jóge ci commune d'arrondissement yi ñoom ñëpp buy si nañu woote président Pape Diop yónni ma fi ma teewal ko fi ci turam ci turu coalition bi remercier militants yi ci appel bi ñu ñëw wuy si remercier ñëpp ci aussi li ñu bëgg a ñëw ànd ak coalition bi nga xam ne moom la taxawal moom ak ay naataangoom ak yi ak responsable yi ak ay partis alliés mouvement citoyen donc mais aussi ak ay collègues am yoo xam ne ay frères yoo xam ne ñoo bokkoon parti bi mel ni président Abdou Fall mel ni ministre Ablaye Baldé bi nga xam ne dafa am projet parti politique ñu ànd ci coalition Bokk Gis dem ci kanamu sénégalais laaj leen seen baat ah dignement les yeux dans les yeux wax leen dañ leen bëgg a dem représenté leen ginnaaw bi nga xam ne suñu parti perte na élection yi nga xam ne moom la ñu génn donc bu ñu defee constat bi jàpp ni pour ñu dem taxawaat comme que président Abdoulaye nañu àndaloon moom mandat am jeex na def na ñaari mandat bëgg a jetteel sénégalais yi ak suñu yàlla suñu borom nanguwu ko laaj na nag léegi ñun ñu jël suñu destin en main jox parti bi souffle bu bees jox parti bi euh, doxalin bu bees jox parti bi aussi beneen euh, dimension ak beneen démarche boo xam ne sénégalais dinañ ko gis incha allah à travers ñi nga xam ne ñoo bokk ci coalition bi. donc loolu moo tax ñu ñëw woo militants yi woo responsable wax loolu ba pare waaye aussi wax leen euh, assemblée nationale bi di ñëw candidats yi dañoo bëgg mu nekk procédure démocratique yoon boo xam ne yoon bu jub la donc li ñu leen di tànnee ci transparence ci équité mais aussi respecté parité bi mais fexe aussi góor ñi mag ñi jigéen ñi ndaw ñi ñëpp gis seen bopp ci liste à travers les 45 départements du Sénégal mais aussi à travers la liste nationale loolu moo tax mu wax ma naa ko wax militant yi ci week bi donc à partir de VSD bi vendredi samedi dimanche dinañ consulter l' ensemble des 19 sections de Dakar def ay investiture démocratique yoo xam ne góor ñi dinañ ci bokk jigéen ñi dinañ bokk respecté parité bi mais ku nekk dañ ci gis sa suñu paree ñeneen ñu yóbbu leen ci liste nationale bi suñ fa jógee nag ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi taxawal structure comité électoraux euh, donc au niveau des sections mais aussi au niveau départemental jublu ci campagne électorale kii di maître Mbaye Jacques Diop moom dafa daal di weddi rekk ba mu set tuuma nee na moom mësul luubal dërëmu nguur gi kii fi nga xam ne nag moo fi nekkoon PDS ne ay loxoom ca ba mu nekkee ca bopp CRAES ba léegi dañoo set wecc ci ab ndaje nag boo xam ni da ko amaloon ak taskati xibaar yi démb la doon yëkkati kàddu yooyu rek di indi ay leexal di dindi itam tuuma nee na moom luubalul dërëm xamul sax nu ñuy blanchir xaalis loolu di ay leeral yu mu doon na indi muy tontu ñi nga xam ne rek ñoo ko doon tuumaal ci wàllu woowu. bañ fa jógee daal di àddu nag ci syndicat yi ak rek ñi nga xam ne ñoom ñooy dogal di décideurs yi partenaire au développement yi lëkkaloo gi nga xam ne dañ koo lëkkaloo nag ànd ceeg benn kuréel bu ñu dippee BIT di bureau international du travail loolu nag ngir càmbar ci yan anam la ñu mën a waxtaanee ba yeesalaat li nga xam ne mooy plan cadre national bi nga xam ne itamit moo xeex liggéeyu xale yi fii ci wàllu mbay napp ak rek yalwaan gi nga ne mooy fi ñu gën a seetloo ñu fa yëngu moo di leen cee àndal ak Pape Samb su dee waxut seen lim ñaata la xayma gi ñu def ci Sénégal ci 2005 wane na ne kat ñetti xale yoo jël benn ba te seen i at toll ci juróom jàpp fukki at ak juróom-ñaar dañ leen di liggéeyloo ci loo xam ne du yoon na te ci fànn yi leen gën a seetlu bokk na ci mbay mi napp gi ak li nga xam ne moo di wàllu yalwaan gi. pour le moment lu ñu mën a wax ci dëkk bi mooy ci domaine agriculture nombre xale yiy liggéey ci liggéey yi nga xam ne dañ ko tere xale bu amul fukki at ak juróom-ñett ci domaine boobu la gën a bari ak pêche bi ndax xale yi xam nañu am na ay région côtières yoo xamante ne comme à Saint-Louis ou bien sur la petite cote dañuy liggéey ci affaire pêche lool tamit ñu ngi ciy remarqué ay pire forme de travail des enfants dans la région de Kédougou aussi am na xale yu liggéey sur les plateformes de des enfants dañuy dugg ci suuf bu ñuy gas pour di fa génnee xeer yi nga xam ne dañu am or. ñaata xale ñuy liggéey ci Sénégal amuñu ay chiffres yoo xam ne yu mujjee ndax fu mu nekk nii gis ngeen ne dañoo mujjee wax ne il faut ñu defaat beneen enquête ndax enquête bu mujjee 2005 chiffres yooyu valable tul. lii moo indi sëgg gëstuwaat plan cadre national bi nga xam ne mooy xeex jëm ci lépp loo xam ni liggéeyu xale la rawatina liggéey yoo xam ni dafay mujj bàyyi ay mandarga si ñoom. loo xam ne defoon nañ ko depuis 2005 tey jii ñu ngi ci 2012 7 ans il faut ñu xoolaat ko ba xam ndax li ñu ci defoon dëppoon na tey jii wala déet ndax am na lu changé bu fekkee itam dëppoon na ñu dem ci loolu su fekkee am na lu changé itam ñu jéem a indi ay solution pour réactualiser ko daal. am na yu yu ci changé mais am na tamit yoo xam ne changé wu ci trop ndax comme ni ñuy waxee rek yu bëri dafay nekk ci mbirum travail des enfants chaque jour da ngay gis lu bees lu ñu lay wax. tey Sénégal li fi gën a soxal ni ci mooy mbirum yalwaan bi ak xale yi nekk ci mbedd bi. mu nekk loo xam ni kenn mosu cee dugal koppar kenn mosu koo jëmmal ci wàllum politique ba tax bureau international du travail di woo kilifay nguur gi ñu jël ci ay matuwaay. Sénégal élaboré na ko gaar mais document bi kenn mosu koo jëfee parce que ci tiroir yi la doon nelaw. xam ngeen ministre du travail ci fukki at yi ci gannaaw presque changé nañ ci juróom yoon wala juróom yoon ministre bu ñëw balaa ngay approprier wu ñu jëlee la fa keneen ñëwaat donc léegi ñun dañuy daje en tant que BIT dañuy jàppale ministre de fonction publique ak syndicat yi ak employeur pour ñu xool euh, segg document bi ndaka diggante 2005 ak 2012 sept ans écoulé na ci diggante bi document bi mënu mënuñu wax ne mu ngi valable toujours. jëmmal goo xam ne suñu ko amalee dina tax kat ba nguur gi daal di yeggali loo xam ne sumboon nañu ko fii maanaam li nga xam ne moo di liggéeyu xale yi nga xam ne daf leen ni xañ dem école di yokk li nga xam ne moo di ñàkkum xëy ci mag ñi waaye tamit di yokk ndóol ci biir njaboot gi Sidya Ndiaye di ci àddu moo di ci nag turu syndicat yépp di yëgle rek ne bépp xeetu xeex boo xam ni mën nañ kaa xeex dañ ko def rek ngir jot ci nguur gi mu doxal li nga xam ne mooy plan boobule ndax nag ndokk yàlla li nga xam ne mooy chômage maanaam ñàkk xëy gi mën a wàññeeku ci dëkk bi kon duñu def rek lu dul déglu Sidya Ndiaye ci micro moo Gueye. plan cadre bi ci paree il faut ñu appliquer ko. pour ñu pour ñu appliquer ko il faut ñu politiquement gouvernement bi adopté ko loolu moo tax ñun ñu ne comme que techniquement war nañu fi taxaw ak bépp compétence ak bépp expertise bu nekk ci réew mi xalaat nañu ñetti fan dañu jox benn commission mu continuer travaux bu paree bu ñu indee document bi ñu nag ñu taxaw temm jaakaarloo ak nguur gi pour que mu adopté texte yi bu ko deful nag ah ñun syndicat lañu lu ñu mën ci action dinañ ko def bokk na ji information. bokk na ñi daje ak yi mais bokk na ci aussi wàcc mbedd bi xeex pour que li nga xamante ne mu ngi fii ñëpp di ko joytu te kenn ñi moo ci wax kenn ñi moo ci jël mesure ah ñu jàpp ci parce que bu ñu ko defulee nag liggéey ci boppam la ñuy lor ci réew mi te ñëpp xam ne ñun taux de chômage bu ñu fi nekk bu ñu jëlee jalgatee yoon di jël ay xale di leen utiliser loolu dafay lor liggéey bi ca bët saalimu réew mi nag la ñuy ñëw daal di dem ca Ziguinchor ñi nga xam ne ñoom ñooy doomi combattant MFDC yi ñoom nag wax nañu te waxawal nañu itamit li nga xam ne mooy ab kuréel dippee ko M3K li nga xam ne nag ñoom ñoo ko séq ñoom doomu militant yooyu le daal di fas ne wàcc si makki bi jàkkaarloog seen i wayjur yooyu nag ne leen nañu jóge foofu ñu ne bàyyi li nga xam ne moom la ñu nekkee loolu nag ñu siiwal ko ci ab ndaje goo xam ne dañ ko amoon ak taskati xibaar yi yi doon leen yëgal rek taxawaay bu yees bi nga xam ne moom la ñu fas yéene taxawee lépp rek ci dox tànk ngir jàmmi Casamance Cheikh Tidiane Cissé Kaba lañ ci àndal. on a grandi mais vraiment on est fatigué. lii yuuxu xol la ñi nga xam ñoo bokk ci organisation ndaw yi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp M3K maanaam doomu ñi nga xam ñooy waa fipp Casamance yi dañoo sonn mouvement bi nag ñi tàbb ko fii ci diwaanu Ziguinchor ki ko def nag muy benn doomu Casamance bu nekk ci bitim réew muy Bijou Goudia bi ñu gën ko xam ci Zita Tendeng moom ci boppam nag wax na ban taxawaay la ñu war a fas yéene taxaw ngir génne ñi nga xam ne waa fipp ci àll bi. mën a jàmm koy dox kenn la jox xaalis. bu ñu nar a joxee lu ñuy naan la ñuy joxe wala ñu lekk la ñuy joxe mais du xaalis ndax xaalis dafa saytaane. maa ngi ñaan sama pàpp yi sama mag yi góor ñi ñoom ñu jigéen ñi sax nga xam ne ñu nga fa maa ngi leen di ñaan ngeen wàccee seen xol yi ngeen bàyyi di xuloo bi entre yéen ñun seen doom yi ñoo sukk ba ci suuf di leen ñaan baal leen ñu ngeen wàccee seen xol yi wàccee fetal yi ñun nañu ñoo seet leen ngeen wax ñu li ngeen bëgg lan moo tax ngeen dugg ci àll bi ndax ñu xam nu ñuy def. ba vraiment ngeen génn si ndax nekk bi ngeen nekk ci àll bi noonu ñun ngeen nekk fii ñu nekk fii neexuñu. ngir am ndogalu président de la république ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Bijou Goudiaby nee nañu rek di premier dimanche bu nekk ci weer bi dañuy amal ay dox ñaxtu ci Casamance bi yëpp li ni mel nag ngir rek exiger li nga xam mooy jàmm ci biir Casamance. gannaaw ay euh, jàmm loolu moo tax ñuy àddu nag ci mbirum li nga xam ne mooy juróomi bis tata yi ñu taaloon fii ci ndakaaru ci ginnaaw stade Léopold Sédar Senghor mën nañ jàpp ne nag euh, ci xayma 150 euh, millions di fanweeri millions ci suñuy koppar moo ne furaas njiitu aftu yi nag ne alal googu duñ ko mën a bàyyi mu daal di nul dem rek ci ab neen daañ porter plainte contre X ngir yoon leeral mbir moomule waaye itamit jàpp ñi nga xam ne ñoo def def googu ci guddik euh, àllarba gi nga xam ne moom la weesu jàpp alxames Ndeyaram Touré ak Pape Samb leen ci image yi di waxal seen bopp juróomi minibus King Long yoo xam ni GIE AFTU ñoo ko moom la benn groupe nit ñëw lakk ay 2 heures du matin liggéeykatu AFTU yi am lu leen bett loolu ñuy metti lu li xew ne fas yéene nañu dem fa mbaxane doone benn. am nañ ci lu ñu naqari torop ndax alal ji nga xamante ne tey moom la ñu yàq. alal la joo xamante ne mën naa wax ne alalu réew mi la. kii muy ligne 63 nga xamante ne fii lay jógee di dem Rufisque ah wax dëgg yàlla ñu euh, toog ba ay deux heures et ci guddi ñu ñëw euh, taal kaar yi loolu ñaaw na trop. ñun nag ñi nga xamante ne ñoo ko yàq ñun xamuñu ko waaye nag. ah dinañu porter plainte euh, contre X. bus 63 bi mooy jógee Parcelles Assainies di dem Tëngéej ay junniy nit di ci dugg bés bu jot. ci gis-gisu njiitu GIE aftu bi liñ leen yàqal kenn mënu koo xayma bis yi dañ koo lepp ci ay banque te ñu ba léegi di ko fay. benn bis bu ne il faut compter ay trente quelques millions lay jar trente quelques millions lay jar loolu ngay calculer boo calculer na aussi bis bu ne au minimum dina am euh, euh, junni passager par jour. wala lu ko xam nga loolu vraiment. Euh, nga xamante ne gis aussi coono bi nga xamante ne moom lañ teggil population bi nga xamante ne boo mësaan jóge Rufisque man loo ñëw stade directement mën loo ñëw euh, parcelle directement il faut nga jël ñaari kaar ñetti kaar kon nag suñu euh, fexee ba teg fi ay kaar yoo xamante ne loolu dina teggil nit ñi coono boobu vraiment ku ko yàq nga xam ne def nga lu ñaaw. bis bu nekk di liggéeyloo ñeenti nit juróomi ñu lakk gàllankoor ñaar fukki borom kër. secrétaire général bu liggéeykatu aftu yi di ñaax ñi def lii ñu delloo ci seen xel. ku jël alalam rango par exemple ay bor di liggéey di fay employé ci ay nit ëllëg ñu yàq sa alal nga dem au chômage yow ma ko def. surtout constant da nga xam ne la nga def tegloo ko ci benn yoon. ñenn gis ne talibé Béthio Thioune yi ñoo def jëf ju ni mel naam su dee nanguwuñ ko wax ci kanamu caméra bi ci aft moom li ñu tàmm doon na bàyyi police mu def enquête am ba lépp leer liggéeykatu aft yi ne li ñuy ñaan mooy nguur gi jàppale leen. nguur gi jàppale leen te mu yem fi Ndeeram Touré ni nag am na xibaar yu fi ruus yu ñuy xamal ni biig itamit taal nañu beneen bus King Long foofee ca Wakam dañuy daal di àddu nag ci jëwriñ gi nga xam ne moom sax moo yor infrastructure ak transport moom ñaawlu na li nga xam ne mooy li dal waa aftu yi Mor nag daal di jóg sol daalam seeti leen yëgal leen ni rek lépp loo xam ni mën nañ kaa def ba jàpp ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef googu duñ ci dellu ginnaaw benn yoon yooyu nag la dénk Ndayaram Touré mu di nañu ko jottali ñu teewlu ko. te maanaam mbir yu demee nii waratul am ci réew moo xam ne nii euh, réewu droit la république la euh, defe naa ne askan wi ñun ñëpp ñoo fi bokk nekk ku ci nekk kenn waratul fajal boppam même boo amee lu metti euh, donc li nga xam ne nii moom moo fi am ñaawlu nañ ko ba ñaawlu fa yem àgg fa nga xam ne nii fa la mën a yem. Euh, li ma ciy wax aussi euh, mooy ne daañu jël jumtuwaay yi nga xam ne yëpp moo ci war ci sama nattangoo yi nga xam ne nii ñoom ñoo yor justice ñoom ñoo yor ministre euh, intérieur daañu ko jël seen matuwaay mm, leneen li nga xam ne nii moom laa ciy wax mooy ne que ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk te mu metti lool ak ñi nga xam ne nii aussi dañ doon jumtuwaay rek la woon ci ñoom ak département yi nga xam ne yëpp concerné la leen incha allah daañu toog def waxtaan bu yaatu parce que nag euh, gaawantu baaxul nañu def waxtaan bu yaatu bu ko defee ñu xool euh, lan mooy génn ci waxtaan bi ñu xelli ko euh, bu dee lu ñu war a appliquer ñu appliquer ko. nit ku nekk nga teg benn policier wala benn gendarme wala benn homme de loi ci ginnaawam dafay jafe mais damay woo rek sénégalais yi ñi nga xam ne nii ci askan wi la ñu bokk ñu xam ne. Euh, li ñuy liggéey ñun ñëpp ñoo ko bokk te Sénégal li koy avancé loo mooy ku nekk nga xam ne yow am na loo war a def ci réew mi am na ay warugar yoo am même bu fekkee ne am nga ay ay ay ay droit am nga ay devoir aussi loolu nañ ci gën a leeral suñu bopp euh, maanaam mbirum citoyen la daal ñun ñëpp ay citoyen lañ donc nañu respectante nañu xam ne alal ji alalu réew mi la bu ñu ko yàqee aussi suñu alal la ñuy yàq bu ñu ko defaree suñu alal la ñuy defar kon mu mel ni lu ne ku ne lépp ñëpp a ngi ci nu jàppee ko noonu nag tey dawal yërmande daal di fi ndar kàpp li nga xam ne mooy xaaj bu njëkk xibaaru diggu ba bëccëg yi mal ñaareelu xaaj bi nag ànd ci.